بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله كشو بيو بقى واحد عليه كشو بايلو ميوي ديكل موي كشو السهو ولا لوبلي على بيه خبقى صوبنا يلا يونان صلى الله عليه وسلم جرو ميون لمس جمج جولي لوتا بس كي يلا دهبك بونجو مي مباجو فاتي يخول لالا يونان صلى الله عليه وسلم ودفول ndax moom la ñu yónni pour mu jotal li yàlla bëgg alayhi salaatu wassalaam les plus grandes écoles mooy les quatre grandes écoles am nañu wuute ci nan la ñuy réparer julli gu yàqu suñu yokkee mbaa ñu wàññi pour imaam Abu Hanifa mi nga xam ne quatre-vingt gannaaw gàddaay gi la juddu moo mag ci ay ilimaan yi nee na moom sujjóot yëpp gannaaw boo sëlmalee la ndax déjà julli gi am nga loo ci boole lu ca bokkut bu ca boolewaat dara bu dee contraire wu abu xanifa te mooy imaam shafii at mi imaam abu xanifa te faatu la judd cent cinquante pour sujjoot yëpp dañ ko war sujjoot qabla salaam bala ñoo sëlmal lu tax parce que nee na julli gi matagut booy jàng dara doo bàyyi ba pare soo ko ba mu mët nga soog a Seydina Imam Shafii ko magee quatorze ans moom def ne dañuy seet ci njubal yonantu sallallahu alayhi wa lan la defoon su fekkee ne dafa sujjootoon qabla ñu sujjoot qabla su sujjootee baada ñu sujjoot baada su ca deful benn ñu sujjoot qabla par exemple yonantu sallallahu alayhi wa bi mu jógee ci ñaari rakaat taayewut dafa sujjoot qabla bi mu yokkee dégg nga def juróom wala bi mu dégg nga ci ñaari rakka ñu fàttali ko mu indiwaat la ca topp dafa sujjóot baada bu fekkee defu ci dara maanaam njuumte liñ def gisuñu ko ci njàngaleem yonentu sallallahu alayhi wasallam yi sujjóot qabla imam malik nga xam ne moom mi ngi juddu 93 gannaaw gàddaay yonentu sallallahu alayhi wasallam imam abu xanifa taa ko magee 13 ans ah, moom dafa différencier wala dafa faram dafa détaillé dafa détaillé te lim def nag

wañé qabla salam ngay sujud sa oh, yo ya, yoké ba'da salam sa yo wañé bala nga seulement ngay sujud sa oh, yo ya, yoké après bo seulement ngay sujud so bolé ñaar yi nak dañuy notal wañi gi moy dañuy jox la jox doole wañi gi nga sujud bala nga seulement it makes a lot of sense hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله